waaw sëñ daam xam nga sëñ daam mooy xuloog mag bi daan ne naan naan dal leen dal leen dal leen dal leen da moom doo nga toog <laughs> ma ne ko na jimbayi lay waxal te leen a kub dal am leen a kub dal te moom doo a toog de nationaliste waaye parti moom daan ne man du ma wuy ñi naa waaye am leen a kub dal bu kenn ñëw bu kenn ñëw sama buntu kër yow ku la wax day ñëw <laughs> ma ne baata ngi sëñ daam sëñ daam la <laughs> mais baatu daal boo ko dal xamul ku ko tax non mais même chose. xamul xamul ku ko parce que ba xam la wala la wala. Macky Sall daf ko wala dañuy xamul qu'est-ce qui se passe quoi. mais parce que. c'est l'heure si Cheikh Bara. Euh, mais politique mais ci communication nga bal mo ci communication tudd na ci. euh, député mm-hmm. assemblée nationale mais tout nous aussi maire de Dakar. Mm-hmm. man ko ko ragal aussi ñu nangu. ñaari ñaari yoyu non mom député gi dana nangu na koo livré booy xool mais xam nga dafa mënta politique. lu tax mënul politique. voilà gis nga politique ki ñuy xép mooy Ousmane Sonko moko man mm-hmm. wat na ko ci yalla bo tegoon Macky Sall ne ko lu Ousmane Sonko bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg ci guddi du lako ko wax. non non xamuko da ko nuyoo ba nga xam ne xamul daa bëgg a génn xamul ba xam. ban ban jeu ak ban tic-tac la bëgg xamu ko da ko njéer mais Barth dafa wane carrément ne moom. maire bi moom fowuma ci dimbali leen ma ci. waaw mooy point faible bi dafa wane point faible am. maire bi sama waaw maire bi député gi soxlawuma ko mun mais du wax ne ëpp naa maire moom. député naa koo bàyyi waaye maire bi moom bakkan lay laaj la wax daanaka naan ko bëgg a jël sama bakkan mu ñëwut. bi la mag yi ñëkk a nangu nag bis bu koy nangu si. parce que moo ne na bu point faible am nit da ngay di bul wane ne man fii laa ne. voilà lii su ma ko ñàkkee du baax ci man. effectivement.